الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين doomu ndey mbokk jullit ñi yal nañu yàlla fayal ñi rafetal jazakallahu xeyran min al muxsinin xeyran jaza li ñu nekkee nii de mooy rafetal ci baaxu yàlla suñu borom subhaanahu wa taala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom de nii da la doon wane ni nii la bëggee yàlla suñu borom subhaanahu wa taala mu jaraloon ko muy naafila ba ay tànkam neewi ngir wane ne dafa bëgg yàlla suñu borom subhaanahu wa taala ñu ngi koy roy ci loolu allahu akbar lu yàlla def moo gën ci ñun yàlla moom la neex mu jël guddi gi nëbb ko ci biir fukki guddi yu mujj yi loolu moo gën ci ñun ci la ñuy góorgóorlu yokkaat suñuy jëf am tuyaaba bu bari kon yàlla bëggal nañu yiw kon li mu def moo gën amaana bu ñu xamoon guddi gii la duñ jaamoon ci yàlla dañuy toog rek xaar guddi leetul qadr wala boog bu ñuy jaamu yàlla dañ koy def mais duñu farlu comme ni ñuy farloo nii kon ñu ngi ci mbir mi fi ñu teg suñu tànk fii la bu ñu ko teggi yàlla nañu yàlla nangul yàlla nañu yàlla xiir ci boppam tey ñu ngi bëggoon waxtaanee ci yitte bi doomu aadama war a yittewoo xam-xam ndax suñu diine bii di diine islaam nekkul diine boo xam ne nit ki dafay dafay mel ni lu paalub rek wala muy mel ni xob nga xam ne bu ngelaw gi ñëwee rek daf koy yóbbu yóbbaale ko te tey crise yu ñàkk xam-xam moo ñu yóbbee ku ñëw nax ñu Sénégal am suuf soo xam ne loo fi ji mu sax dangay gis benn waaye jóge fee ñu baal ñu ci terme bi de amuñu ci benn jublu pour wax lu ñaaw waaye bu woote woon diine bañ a sol yére sax di nga gis dina am ñu ko ci topp ci diine diine diine bañ a sol yére boobu fii suñu réew exemple rek lañ jël mais ñu ngi def lu gën a raw ba diine bañ a sol yére ndax diine yi ñu fiy woote yépp bu jëmeewul nit ki ci bokkaale ci ay bidaa lay jëmee nit ki te ñaari yépp baaxul ci doomu aadama bi sawara la ko jëmee nit ki bu fekkente ne dundam li muy jaamoo yàlla yépp bidaa la mooy bu ñëwee yàlla du ko nangul ay jëfam yàlla moo ko wax ci alxuraan de képp koo xam ne jëf na jëf bu wuteeg yonent bi sallallahu alayhi wa fa huwa lan la wax fa huwa radd ah aaya bi lu si topp àllaaxira dafay bokk si ñi si ñi perte kan mooy ki perte mooy ki jëm sawara nga ñëw ba àllaaxira yàlla catégoriser ci groupe bu ñu perte te sax boo xoolee xadis bi sax loolu lay wax inna inna ahsanal xadis kitaaballah wa xayral hadi hadi muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa charal umuri muxtasaruha fa inna kulla muxtasin bidaa wa kulla bidaatin dolaala bidaa boo gis si réer la jëmee borom te bépp réer safara la yàlla nañ ci yàlla musal kon ñaari mbir yi jullit bi war na ko mooy te li ko koy yóbbee ñàkk xam-xam moo ko waral ñàkk xam-xamu sharia ñàkk xam-xamu dégg fiq yàq ñàkk xam-xamu pas-pas bu leer lii mooy sonal nit ki doomu ndeyi mbokk jullit ñi ñu xool surtout Yuusuf ci fin bi suñu imam jàng na ko léegi qul haasihi sabili yàlla moo wax yonent bi ne ko waxal mu koy présenté suñu yoon bii te mooy benn yoon asiraat al mustaqim waxoon nañ ko suñu bayaan bi passé du ay yoon képp ku leen ne diine yàlla bi ay yoon la mu leen di nax wallahi yoon bu mu leen tracé bëgg leen bëgg leen fa teg du leen jëmee àjjana ci boppam la leen di jëmee mu utiliser leen nax leen yow mal xiyam bu ngeen dajee foofu nekk fa di xeex yàlla boole leen ak pënd bi sànni biir sawara moo ñu ko wax surun suura histoire bi am diggante ñi doon naxee ak ñi doon nax bu doon sax yow bu ñu la naxee nga rëcc dugg li nga xam ne mooy àjjana moom mi la doon nax ñu ñu àtte ko doo ko safara parce que moo doon naxaate kat bi sax mu yomb waaye moom mi lay nax ak yow mi nangu ñu nax la yépp yàlla yéen ñaar lay boole kon bu ñu nangu ko ñu nax te nax bi yëpp lan moo ko waral ñàkk xam-xam yàlla mu ne yonent saa salaam waxal ne suñu yoon bi xul haasi sabili adon ila allah yoon la boo xam ne yoonu woote la jëme ci yàlla yoonu woote jëme ci yàlla ala basiratin nag dafa war a tegu ci xam-xam point bee nekk noonu mooy mooy mooy temu waxtaan bi tey woote gi du nit ki dafay taxaw rek di woote lu ko neex sama xel neex na yor naa làmmiñ bu neex rek naa nax nit ñi xëcc leen ci yoonu seytaane yi moo tax yàlla préciser foofu ala basira al basir fii dafay firi xam-xam woote bi ngay woote ci yoonu yàlla dafa war a tegu ci xam-xam kan ak kan moo koy def yonent bi yàlla tàmbali ci moom ana moom yonent bi wa man ittabaani ak képp koo xam ne yaa ngi woote ne da ngay topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ñun ñëpp ci lañ bokkoon ñun ñii ñëpp dañoo woote ne yonent bi la ñuy topp kon ñun ñëpp ay wootekat lañ mbir mi du benn famille rek moo ko moom waaw waa kër diw moom ñooy boroom xam-xam yi wala waa kër diw moom ñooy boroom alxuraan yi déedéet ñun ñëpp ci bokk yam qul haadihi sabili ad'u ila allah ala basiratin ana wa man ittabaani moom yonent bi ak képp koo xam ne yaa ngi woote ne da ngay topp sunu yonent bi wootekat nga kon kenn mucc si lan moo war lan moo ñu war nag mooy fexe jéem a tegu suñu tànk ci fexe am xam-xam suñu maam Adama moom mooy abul bachar moom moo moom moo moom moo ñu moo ñu jur ñun ñëpp ku ciy tudd ay maamam di arrière di arrière di arrière boo mënee arrière rek ci Adama ngay mujjee waaye bi ko yàlla. sàkkee ba taxawal ko ci kanamu malaaka yi da ngay xam ne fii yittey xam-xam moo taxaw waxoon nañ ko suñu suñu waxtaan yi passé wa allama aadama yàlla xamal nga xam ne doomu aadama fii xam-xam la fi soxla yàlla def ci aadama xam-xam mu mu tax ne dem ba malaaka yi sujootal aadama maanaam sujootal yàlla ci sant li nga xam ne moom mooy aadama lan moo waral loolu xam-xam bi aadama génnee kon xam-xam lu foor la suñu diine bii nekk diine islam nekkul diine boo xam ne comme ni ñu ko waxee sànq lu waaye neex def déedéet diine ilmul la qabla al qawl wal amal diine la boo xam ne nit ki balaa muy wax wala muy jëf dafa war a am xam-xam maanaam du diine boo xam ne nit ki dafay tëb rek di wax wala nga tëb rek di jaamu yàlla nu mu la neexee déedéet dafay tegu ci xam-xam bu leer muy pas-pas bu leer xam-xam boobu. nit ki dafa war a góorgóorlu bu ko amee mu takk ko téye ko yonent bi wax ci benn xadis bu neex ñu bàyyi xel bu baax la yonent bi wax képp koo xam ne bu gën a nekk borom xam-xam te li mu xam daf koy takk téye ko dootu ko fàtte ñun léeg-léeg ñu jël suñu téléphone yi di enregistré te noonu la ñuy def wala léeg-léeg ñu jël clé USB wala carte mémoire te noonu la ñuy def di si def suñuy suñuy suñuy thème. bu ustaas bi di def dars ñu jël ko enregistré ko ngir mu ñu mun ko tegaat ko am na lu gën a garaaw clé USB am na lu gën a garaaw suñu téléphone yi ñuy enregistré yonent bee ko wax xam ngeen donn donn donn yomb na wala yombul maanaam ki donn ban effort la def ci li mu doon ah deful benn effort ci li mu doon xoola xale bi góor la moom juddoogul xëy na léegi sax ak xarale yu bees yi mën nañu xool ci biiru biiru yaay boo boo xam ne ëmb na xool ndax góor moo fa nekk wala jigéen moo fa nekk ba kañ sax lay am doom maanaam science yegg na foofu waaye bu dee jamono bu njëkk bi yonent bi di wax boobu mënoo xool xam ndax góor mooy ñëw wala jigéen en tant que ndaw si ëmb na rek borom këram génn àdduna kenn du miraas dañuy xaar il faut xale bi judd ñu xam ndax góor la pour miraas bi jaar yoon parce que daf koo ëmb ci fekk borom këram mu ngi dund borom këram faatu. fekk moom mu ngi ko ëmb kon dafay doon mu ngi mel ne muurum koor bi ñuy waaj a génnee ki nga ëmb ci biir da nga ko ciy boole parce que existé na xëy na heure génn moo jotagul waaye ruu ëf ëf nañ ko li nga xam ne mooy ruu foofu différence bi borom borom xam-xam yi am rek mooy jamono cent quarante jours yi nga xam ne foofu lu mu deret la nekk nekk suuxu yàpp ëffaguñ ci moom ruu foofu la ñenn ñi ne doo ko génneel muurum koor waaye en tant que su rombee cent quarante jours yooyu ba nga xam ne bépp dogal wàcc na ci moom. ëf nañ ci moom ru dafay nekk jëmm boo xam ne dañ koy calculer wute bii moo am ci borom xam-xam yi kon kii ban co ban ban ban coono la am ci ñu koy xaar ci miraas bu wayjur bi nekkoon borom alal kenn du doon alal bi tànk judduwul bi muy judd fekk na fi ay sëram boo moytuwul yoo xam ne wala ay frère am bi paa bi di feebar ñoom ñoo ci sonn di kërti kërti ñu jël exemple xëy na ay sœur ay sœur kese sax la am waaye bi mu juddoo ay sœuram sax boo moytuwul ñooy sonn ci moom di defar di sang di nangam ak nangam miraas jot moom mu am ñaar sœuram yi am benn moom lan la sonn moom sax bal fekkeewul dara sax lu tax mu ëppale miraas moo ko may donn gis ngeen donn bi noonu mu yombee ci moom moo gën a yomb nit ki doonee noonu xam-xam ngir bu bu fekkente ne jëfe na xam-xam bi mu am kon carte mémoire xam-xam nit ki mën koo téye takk ko dootu ko fàtte mooy jëfe wallahi dars boo jàngoon léegi-léegi am yéene fas yéene suba dama koy jëfe fi ma ko jàngee nii pare naa pour jëfe ko nga taxaw di ko jëfe mokkal bi nga koy mokkal du du bokk ak koo xam ne daf ko dégg nii rek bàyyi mu jàll wala daf ko dafa dem uti xam-xam rek ngir pour wax ak nit ñi am na ñuy def noonu ñoo xam ne dars leen doo nga tax ñuy toog déglu dars ngir nañu mën a wax ak nit ñi ñoom du ñu jëriñu te loolu bàkkaar la loolu danger la yàlla suñu borom daf ko wax ci alquran atamuruna naasa bil birri wa tansawna anfusahum yow moom sa yitte yëpp mooy di digal nit ñi baax fàtte sa bopp di digle cangaay te fekk sangu woo xam-xam bi li koy tax nga takk ko mooy nga jëfe ko moo tax yoon saa sam ne man amila bi ma alima warasata allahu ilman bi ma alima warasata la wax dafay donn nit koo xam ne am na xam-xam mu jëfe xam-xam bi yàlla daf koy donnloo xam-xam boobu noonu mu jëfe daf koy donnloo moo tax tout le temps moo doon nañ koy xool su ko yàlla du utiliser àjjana sax yàlla dafa am ñu mu koy donnloo ñoo xam ne dañuy dugg àjjana dugg bu yomb comme niñ ko nettalee nii ci xale bii judd seen dugg àjjana noonu lay mel day yomb duñ ci am benn effort waaye nag dafa am fu ñu jaar ba yàlla donnloo leen loolu ñooñu ñooy groupe ñi ragal yàlla képp koo xam ne ragal yàlla mu ngi ci moom mooy day taxaw di def santaane yàlla yi kéem talaay kàttanam tere yàlla yi mu bàyyi ko sori ko du ko jege kooku dafay donn àjjana dafay yomb ci moom comme xale bii ñu wax nu muy doonee miraas lan moo ko may àjjana bu yomb boobu ak taqwa moo nekk ci moom mooy diplôme bii ñu ut ci koor yàlla nañu ko yàlla defar doomu nday mbokk jullit ñi xam-xam a ngi nii dañ koo yittewoo dañu yittewoo jàngi xam-xam gis nga nit kuy tegu ci yoonu xam-xam yoonu àjjana la tegu bu ci faatoo ci diggante bi àjjana la jëm paa bu mu teg bu tegee paa bii ñu ngi koy yëgatal ay daraja bu tegee beneen paa ñu ngi koy effacer ay bàkkaaram jamono bi mu toogee ci jotaay xam-xam bi malaaka yi ñu ngi leen wër nombo ñoom ñiy jàng di tudd yàlla di ko fàttaliku malaaka yi wër leen nombo di leen ñaanal jéggalu yàlla ba keroog ñuy jug ci jotaay boobu yamu ci bi gën a neex yàlla di leen tudd fa moom nan xool leen abdallah doomu ibrahima soare mu ngi nee ci mbooloo bi yow yaa ngi tudd yàlla ci mbooloo ay bàkkaarkat ñun ñëpp ay bàkkaarkat lañu kullu bani aadama xataa wa xayra xataa atawaabuun ñun fii la ñuy tuddee yàlla ci mbooloo ay bàkkaarkat waaye yàlla duñu tudd ñun ci mbooloo bi gën mooy ci mbooloo malaaka yi ñoom duñu bàkkaar lii dafa neex de faskuru nii askurukum wax bi dafa leer te loolu yëpp suñu imaam jàngal nañu ko sànq wallahi dafa neex nit ki ñu ngay dégg alxuraan bi ñuy jàng ngay def tadabbur loolu di nga tax di nga yegg ci benn niveau moo tax bu imam di jàng dañuy settantal ci kii même bu ñu déggul arab nañ ci concentré wu des fois rythme alquran ni koy yàlla yàlla di riime même boo ko déggul di nga am benn jeexital buy buy sonor sa sa nopp bi kon nañu góorgóor lu baax tegu ci yoon bi yoon bi mooy yoonu dëkk waaye nag xam-xam moo koy lal su ko xam-xam lalul rek boo moytul ci ay erreur rek la ñuy dëkk yowmal xiyaam bu ñu jàkkaarloo ak suñu borom subhanahu wa taala yaakaar ne jëf nañu lu dul jeex fekk nekk day jëfuñu dara jëf boo xam ne teguwul ci xam-xam ba yóbbee nit ki muy def lu yàlla gërëmul wala muy def loo xamante ne yoon bi saa salaam def ko woon dafa mel ni xeer boo jël rek muur ko suuf ngelaw gi jékki-jékki ñëw rek yóbbu suuf si lu fay des xott xeer bi kese maanaam jëf yi noonu lay mel maanaam da ngay sonn ci jëf mu jaral la nga perte temps wu bëri def ci ay coono yu bëri def ci ay dog yu dul jeex nga ñëw yàlla delloo la ko ndax lan mooy yonent bi defeewu ko woon nii te lañ ci yóbbu mooy lan mooy ñàkk xam-xam yàlla nañu yàlla xiir ci ñu bëgg xam-xam yàlla nañu yàlla xiir ci ñu tegu ci yoonu xam-xam bu ñu amee xam-xam boobu yàlla nañu ko yàlla yombalal ñu mun koo jëfe ndax ci loolu rek la ñu mën a amee teraanga àdduna àllaaxira incha allah dañu jëm ci li nga xam ne mooy suñu ñaareelu parti naafi la yàlla nañu yàlla nangul